avantage ak seen njëriñ mooy ñoom ñëpp ko muy Amadou Ba Boun Abdallah maam Diop Mame booy Diao képp koo xam ne candidat déclaré nga si biir APR benn bokk yaakaar ñu toog waxtaan seen biir tënk parce que damay jàpp ne benn objectif lañu war a am ñoom ñëpp te mooy objectif président de la république mooy président bokkatul ci carte gi mais président suwem ak ñoom waa APR bennoo mooy kii remplace président Macky Sall génn ci biir APR benn bokk yaakaar bu nekk la continuité des réalisations, des projets et de la vision du président Macky Sall, bien mmh. orienté en 2035. Ah. Donc leur intérêt, leur avantage, leur dégueulaille, leur solitude, les gens di jox doole dëgg protection à travers l'opposition bi ñu qu'ils soient unis et qu'ils trouvent un consensus mm-hmm. bi unir di les militants les responsables et je crois que vous faites fekkente ne C'est nañ mm. pour dundal seen partie. mooy ñu juboo doon benn eh. yaakaar naa war nañoo déggoo doon benn waaye sëñ Saal ruubul kenn sëñ Saal dafa daanu fi mu ne xamatul fu mu teg tànkam ah, sëñ Saal xamatul fu mu teg tànkam seen espoir ak yi xool sëñ Saal ah, te plaît tamit nag ay espoir am yëpp a xamatul fu mu benn bokk yaakaar ah. xamatoo fooy jëm. waaw Benno Benno Bokk Yaakaar actuellement. Ah, eh, eh, oui yaa ngi koy wax tout à l'heure Il y a des tractations <laughs> depuis le début man dama ne euh, dañuy tourner autour du pot man ma euh. jàpp ne stratégie politique la. Euh. boo xam ne le président de la République Macky Sall moom la teg. Mmh. stratégie politique la pour que ñiy frustré parce que y aura des frustrés. Mmh. maintenant pour permettre pour que ñiy frustré duñu am temps il joue avec le temps pour que ñuy frustré nous ñu am temps pour dem campagne pour présenter cette candidature ma am yaakaar ne benn bi ci la c'est-à-dire que boo bàyyee ba euh, chaque semaine chaque jour une semaine bi di ñew wala ay bés bi di ñëw dinañu dem moment bo xamné ne ñenn ñuy choisirul te mu leer la né duñu top ci candidat bi ñu choisir hmm. duñu mëna am temps pour dajalé parrainage duñu mëna am temps pour wajal sen bopp pour dem campagne électorale hmm. lolu également stratégique politique mëna nek fofu man dama nan sax du candidat Benno candidat APR parce que ñenen ñi de plus en plus ñuy wane ne ay parti yóbbaale la mhm. déggoo ci benn candidat buñ la citeel di Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Diouf Sarr Aly Ngouille Ndiaye ba ci Boun Abdallah Dionne Mam euh, Amadou Mame Diop Moustapha Diop ak ki nga xamante ne moom mooy Mame booy Diao ñoom kese boobu ba tey ñoom ngay dégg déggoo beneen candidat bu jóge parti socialiste wala candidat bu jóge AFP donc candidat APR la eh, ñoom eh, yóbbaale bi fi nekkoon mon mon ami maître El Hadj oui ton ami maître El Hadj Diouf oui ah, donc ñeneen ñi moom xam ah. ñeneen ñi man quand je parle de Benno également je parle des des alliés yi nga ah, xamante ne. mais moom Benno nek nekk de. oui mais bon te nee il a été le premier allié à être reçu par le président. <laughs> Wa ba mais ñeneen ñi mom disons que né candidat Benno Bokk yaakar kese lay doon mais non euh, réunion bobu nga xam ne amoon na man dama japp né Amadou Mame Diop ak Mansour Faye xëy na am nañu gént wala ñu am yaakaar ne Amadou Ba ñu ñuy choisir. Mm-hmm. ñu dem arrondir les angles.

à moins que mu am ay changement de dernière minute ak ñi nga xam ne jàpp nañu Amadou Ba est bien positionné ñu dem ci mais kenn xamagu ci li fi ah président de la République dañuy rek jéem imaginer ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ci nekk ay Diop ak entre autres mais lu mu ci mënti doon man dama ne stratégie la bu ñuy teg pour yeexal pour que nous ñu bañ euh, mais il faut choisir également parce que c'est vrai wax Abdoulaye Daouda Diallo euh, euh, peut-être a na parti APR am une légitimité et tout mais il faut choisir nit ki nga xamantene également sénégalais yi xam nañu ko. Mhm. c'est-à-dire que pas d'une base fait le féete pas fil le pas parce que Boun Abdallah Dionne est quand même euh, loyal au président de la République euh, je pense que ñom ñoo ñu gën xam li nga xamné ne moom moo ci sen moom moo nekk seen bëgg-bëgg na xamna mhm. euh, ni bëgg opposition bëggee yéeg pouvoir ñom non lañ bëggee yéeg peut-être qu'ils vont faire le bon choix d'accord sëñ mhm. bon man lay sumay suivre l'épisode ce qui se passe au sein de Benoît, daf may am benn euh, téere bu Samuel Beckett bindoon mu naan on attend Godot. Mhm. dafa mel ni on est en face de Godot xam nga Godot mooy chaque fois dañ naan mi ngi ñëw mi ngi ñëw espoir bu ñu xoolee ne gis du du ñëw. kanda bu ba léegi ñu ngi naan ndax dina ñëw dina ñëw dina ñëw ba léegi mais ba ba léegi. mais dina mës a ñëw. waaw mais mais ba léegi gisaguñ ko rek. moo tax ma ne on attend Godot ba léegi rek. on attend Godot waaw on attend Godot ba léegi Godot exeegul exeegul léegi nag dafa am ñoom lu ñu waxoon dès le départ le choix du président mooy ñun sunu choix loolu xam nga ñoom ñëpp loolu la le choix du président c'est le nôtre. bien sûr waaw léegi depuis boobu léegi kon man mbir mi pour man yëf yi jax na le choix du président dañ baye président bu yéwo tour tour mais am na ñoo xamante ne. ñu choisir Amadou Ba duñu ci ànd te dara. waaw wa mom la la tax mané kon nak am na ñoo xam ne bu ñu fa jëm si fa la jëm si. unanimité mom amul fenn. waaw moom laa jëm si waaw mais dama né waaw mais leen mooy unanimité mom amul fenn waaw unanimité mais dama né on avait dit on avait dit le choix du président. Mm-hmm. ki nga xam dañ ne ko dañ ko jébal lépp. kooka fi ñu toll nii moom rek mo c'est-à-dire moo habilité il a toute la latitude pour xol kiko neex mu tànn ko mais la difficulté majeure dans tout cela, mhm. Amou ce n'est pas le choix de Maxal. Ce n'est pas son choix. D'où choix ce n'est pas son choix. Deux sondages ont été effectués au sein même de Benno. Et chaque fois, c'est Amadouba qui sort moi, mhm. De loin, chaque fois, il sort. Il est obligé alors. il est chaque fois, il y a deux sondages, Il est obligé alors. Non, on va rebattre les cartes. Parce que finalement, président, qui me donne Khalat bëgg ko dans les sondages il est dans les bas-fonds du sondage. bon ñëpp xam nañ ko donc donc mon xam na donc son ki mu ki mu ki mu ki choisir finalement gis na ne ñoom bëgguñu ko. ki gars yi bëgg ko président bi ko c'est là où se situe maintenant la difficulté léegi nag comment faire maintenant aujourd'hui pour mën a introniser euh, comment dire Amadouba alors que ñoom wóoluwuñu Amadouba maintenant, man nee naa leen ki la yéenewul nga nekk maire Dakar mon la yéene nga nekk président de la République kooku il faut qu'on soit clair président bi wóolul Comment c'est clair lu ko et c'est pas son choix bu ko bu ñu ko jëlee rek c'est le choix par défaut. moo mhm. fi nekk. léegi nag man li ma jàpp mooy yeneen candidats yi et c'est là où les gens ne devaient pas s'engager on est dans une compétition démocratique man li ma waxoon laa gëm que mille euh, écoles rivalisent nit ñi ku ci toog muy sentir ne muy Mamboy Diaw muy keneen ku ci sentir ne am nga mbooloo mu topp sa ginnaaw nga war a mën a dem ci compétition bi am dara nga dem nga samp sa ndënd man loolu laa gëm c'est-à-dire su ma doon ñooñu man tey président bi bokkatu ci du ma dugg sax ci ces histoires de consensus là. parce que moi aussi lan moo bon lan moo bon bu subaa ñu ne ànd nañ ci. les gens derrière vont dire à leurs militants bu leen wote filles, bu leen kii parce que loolu gis naa ko fi hein. à la mairie de gis naa ko fi les gens qui l'ont dit c'est-à-dire dans ne ne votez pas pour telle personne alors que ci campagne bi dañ doon taxaw di leen campagnal ba pare joxe ay mots d'ordre suuf ne bu leen woteel Massamba bu leen woteel Mademba. et on risque de se retrouver en face de cette situation là. donc man li ma gëm mooy am sañ-sañ ku mel ne booy Boye Diao am na ay nitam nañ samp seen ndënd wax nañ ñun aussi dañuy nekk au même titre que les autres sans se soucier d'un candidat consensuel. c'est clair Kader on termine avec toi li nga gëm affaire Benno daanu. puy yow kii non kii rek ak passé lii li ma gëm laa neex rek non bu ma jaaxase moom de sama sëriñ je pense que sëñ Sall rek semaine bii nii les choses ont évolué te ñu bari bàyyiwuñ ci xel waaw le choix de Macky aussi évolué. évoluer coalition parti politique les pays changer. Donc, ils changent. depuis nous avons créer des solutions au parti Pastef et choix de Macky Sall de jouer ci Calcul Calculer de jouer ci l'eau. le roi est mort vive le roi mhm. Pastef est mort mais PUR va renaître et

affronter seigneur Moustapha jamais de affronter pur Avec ce qui s'est passé à Pastef des Pastef Benen ben un parti ben un am mënu fi nekk choix bi muy teg kan moom charisme bob. kan mon mot paraît pour affronter Idrissa Seck kan moo paraît pour affronter Bougane kan moo paraît pour affronter le candidat du seigneur Moustapha si parti pur Quand mon mot paraît pour

rien n'empêche au PASTEF d'avoir un candidat. mais est-ce qu'on a dit le contraire dañoo wax loolu si non non qui non qui kii daf leen di génne. maa ngi dugg non génnewuma PASTEF ma PASTEF. Ah. waaye yow la renaissance de PASTEF non j'ai dit la renaissance de PASTEF ci bir pur lay jaare mu ci pur lay jaare te PASTEF du solution parti bi ak Ousmane bu nekk ci kaso bi ne va pas dire que nous participer à ces élections choix ou Macky Sall day gën compliqué maintenant. d'accord et d'autres nekk choix bu yomb. mësul yomb mësul yomb amoon